mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi fii ci kër Serigne Mamoun Mbacke ci màggalug Daaru Salaam édition 2021 bi tey ji yem ak àllarba di fanweeri fan ci weeru juin atum 2021 ñu nekk ci njabootuk Serigne Modou Mamoun Mbacke nekk ci kër Serigne maamul di doom ci Serigne Djili Mbacke moom Serigne Modou Mamoun ibnu Serigne Maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan bi fi ñëwee nag fekk fi bokki taalibe yi ak euh, bokki jullit yëpp ñu dajal di siyaar li nga xamante ni moo di sëriñ bi ñu daal jox kon sëriñ Xaadim Gueye mu nga xam ni jëwriñ la ci kër gi di rakk tam ci sëñ bi ci ndigalu sëriñ bi bu noppee ñu soog a jox sëriñ Muudu Maamun kàddu gi mu yëkkati ay kàddu jame ko ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yi bisimilah sëriñ Xaadim salaamaaleykum wa rahmatullah bokk ci jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bokk ci yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar ci turu Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke di xalifa Serigne Abdou Khadir Mbacke Serigne Jiili muy nuyu mbooleem njaboot gi fi teew di leen xamal ne seen jataay wii lu am solo la ci moom sëriñ bi nee na mu ngi nuyu bokkam yépp yi nga xamante ne nii bis tey jii ànd nañoo moom bis bi di màggal màggal gi nga xamante ne nii maam Cheikh Anta la ko Serigne tegoon ci loxoom mu doon ko ganale ñu di ko màggal mu jaar ci loxo yi mbooleem njabootuk maam Cheikh Anta gi ba waxtu wii daaw mu nekkoon ci loxol way juróom wa Cheikh Abdou Khadir Mbacke Serigne Jili yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem mu bay ci waaram wax dëgg yàlla macha allah. ba egsi ci fi ko suñu borom yemale ren jii tey ñu di ko màggalaat fekk ko fi ñuy sàkku ci mbooloo mi fi teew ñëpp ñu yeesal ñaan ci moom sunu borom yeesal yërmandeem ci moom te fay ko jëfam fay ko xolam wàcc yërmandeem ci moom ah ñun nag ñu nekk ci njabootu sëñ Maamun xëy na am na côté bu ñu féetee way jur ci moom waaye njaboot lañu ci moom tey jii ànd ak sunuy mag ñu toog nii muy ay bokkam yépp ñu ànd ak moom ñëw tey jii ànd ak moom bis bii fas yéene koo dundale ci farata ak sunna akuk taalibe mbooleem bokki sëriñ jiili yëpp ak njabootuk sëriñ jiili yi ay rakkam yépp ànd koog moom nekk ci ginnaawam moom it mu nekk ci seen kanam taxaw taxawaay ba waajuram daan taxawee fas yéene lépp loo xamante waajuram tegoon na fa tànkam mu teg fa tànkam ànd ko rakkam yi ñoom it ñu ànd ak moom dox doxin wu rafet wax dëgg yàlla jox ko seen bopp nañ ko joxe woon seen waajur moom it mu féete leen fa leen féete woon mbokkam yi nga xam ne ñooy mbokki sëñ jiili ci wàllu waajur wu jigéen ñoom itam ñoom ñëpp dajaloo ànd ak moom nekk ci ginnaaw sëñ Maamun xam ne mooy seen mbokk te lépp lu bokk ci Serigne Touba bu la ko Serigne Touba bu la ko suñ borom baaxee loola ngëneel la loo xamante ñoom xam nañ ko jàpp nañ ko ba loolee tax na ñoom ñëpp ñu ànd takku nekk ci ginnaaw sëñ Modou Mamoun mi fas yéene koo jàppale ci liggéey bi nga xamante moom la way juróom wa doon doxal ba mu egsi fii tey suñu borom def dogal ba ko neex mu nekk ci loxoom bi ñu fas yéene ñun ñëpp ànd ak moom ak rakkam yi wéyal loolee nga xam ne way juróom ba moom la doon doxal mbokk yi nag kenn desut ak dëkkandoo yi taalibe yi ak xaritam yi nga xamante ne ñoom la nekkal fële ca Ndakaaru ñoom it ñoom ñëpp bàyyi seen yitte ñëw ànd ak moom dundal bis bi ci sunna ak ci farata kon ñu may jox sëñ bi mu sànni ci ay kàddu moom itam incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah ngi sant mbokk yi fi daje yépp di sant njabootu sëriñ Jili ki ci gën a doon mag ñu tàmbalee ci man mi sant naa yàlla bu baax di sant njaboot gi ñëpp bàyyiwuñ ci kenn di sant mbokki sëriñ Jili fi teew yépp ak mbokki xarit yi ak àndandoo yi sant suñu waajur sëriñ aboo Mbàkke di ñaan suñu boroom liggéeyam bi lépp lu sëriñ yéene sëriñ Jili yéene woon te eggale ko woon mu liggéey ab liggéeyam ba yeggale liggéeyu sëriñ Jili magam ja ndax amoon na yéene liggéeyal sëñ moodu Mamoun dañu ko daan wax waaye fekku fekku foon sëñ Modou Mamoun mu fekk fi sëñ Jili kon mu ne woon la yéene woon ci sëñ Modou Mamoun ci sëñ jiili mii laa ko yeggalee ginnaaw nag sëñ jiili na ko ginnaaw it la sëñ jiili yéene loon liggéeyal baayam ñu ngi ñaan sëñ aboo liggéey ab liggéeyam ba booleel ko ko ci liggéeyal ko ko ci barke boroom Touba. di leen xamal ne suñu xool seet na lool ci ni ngeen dundale bis bi ndax xam ngeen ne bis bi sëriñ Touba nda koo tegoon ci loxo maam Cheikh joxoon ko ci ndigal muy ba mu jógee ci tukkeem bi ñëw ku nekk di ko xëccoo. bëgg mu dal seeg yow mu ñaan leen ne may leen ma ma laaj jàll sama boroom mm-hmm. jël kaamil bi mu yor ubbi ko yam ci aay bu ñu naan wallaahu yadoo ila daari salaam mu xamal ne suñu borom da koo tegtal mu jëm daaru salaam mu ñëw wàcc ay bagaasam fii ci daaru salaam ah, maam Cheikh Anta di ko ganale bis ba bis ba delsi bu sëñ bi dem nag ne ko bis bi kat def naa la ko jox naa la ko saa bu delseetee na nga ko def mu màggal mag ñi tam daa am lu ñu daan fàggu mu ne ko mbàkke lu ma ciy jëlee mu ne ko defal naa la ko képp ku fi fanaan buy ñibbi du yóbbaale bàkkaar mu walbatiku ne sëñ Modou Mamoune kon kat am nga bis sëñ Modou Mamoune yor ko di ko def ba ngeen si daaw suñu waajur wa doon ko def suñu boroom def la ko soob ba suñu weneen waajur yoraat ko ñu ciy doole sant yàlla bu baax a baax a baax a baax te xam ne loolu àdduna ñoo ànd ñuy sant njaboot gi bu baax kii toog sama rakk sëriñ Mamoor Mbàkke si Kaab moom teew na fi moom it ñu ngi sant ñi bëggoon a teew te mënuñoo teew ñëpp xam nañ seen yéene ak seen taxawaay ñi fi ñëwutit it lañ war a nekk sama diggante ak ñoom ña ca ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax di leen xamal ne cant gi am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem asalaamaaleykum gàmmu hmm. hmm. waaw waaw loolu moom dana am luñ la ci mën a seereel ndax maam Seex Anta daan na toog ak sëñ Moodu Maamun sëñ Moodu Maamun daan na toog mel ni kuy kalanteeg moom bu su ko sëñ maam seexanta Anta waxee dara mu ne ko ah, Mbàkke yaay sama baay waaye ñoo bokk ku ñu yar muy Serigne Touba ma tibb ci moom tibbaat ci yow loolu la ko doon wax nga xam ne Serigne Touba dafa yar maam Cheikh Anta wëlbatiku yoraat sëñ Modou Mamoun juróom yoo xam ne sëñ Modou Mamoun bindal na ko ci fukki kaamel ak juróom ñaar ba pare fukki at ak juróom yooyu itam lépp lu sëñ Touba doon xewloo ci loxoom lay jaar bi muy dem gànnaar it sëñ Modou Mamoun Mouhamad Mouhamadou la tudd waaye bi mu nekkee gànnaar ak moom ak sëñ Modou Awa Balla ak ku nekk dañu la doon dàkkantal ak sa turu waajur ñu naan ko Moodu Cheikh Anta kay ñu naan Moodu Awa Balla mu ko defee nag sëñ Moodu Maamun moo yoroon fi nga xam ne fi la xéewale sëriñ bi nekk waaye foo su ko yéenee laal nga xam ne dem na ba nga xam ne bëgg a taxaw jàng alxuraan dooleem duutu ko ko may ndax ñàkk a ba benn bis mu jël ay bant xar ko takk ko ba mu wër dënn bi nii mu takk koo kaala gi taxaw di jàng alxuraan ni mu ko doon jànge noonu jàngaay bi neex lool ba sëñ Tuubaa génn bi mu génnee ni mu gisee jëmmi sëriñ Muudu Maamun ji ak ni mu mel mu ne ko Muudu Maamun lu waral li mu ne ko bëgg a jàng alxuraan suñu borom ji te awma dooley taxaw mu ne ko teñ dénk la caabi jii nga xam ne fi la xéewal yëpp nekk nga xam ne lépp a ngi fi mu ne ko dañ maa dénk Mbàkke waaye taxul ma moom ko sëñ Muudu Maamun ne ko bis ni tey yow yaay Muudu Maamun sëñ Tuubaa na ko bis ni ki yaay Moodu Maamun ku ñu wóolu ki mm-hmm. waaye Muhammadul lañ ko tudde la tudd ca la ko sëñ Moodu Maamun sëñ Touba tudde Muhammadul Maamun ku ñu wóolu ki ca la tur woowu jóge mm-hmm. maam Cheikh waaw moom boo gisee maam Cheikh moom dafa nekkoon ca gaawaan gële sëñ Modou Mamoun bëggee mu ñëw fii nag moom nee na ko du ma dëkk ci ay sàkket jóge fa dëkkaat ci sàkket danga may tabaxal taax mu mag bu mu ko ko mu ne ko waaw ci la ko tabaxal taax mii ngay gis ci biir kër gi defaloon ko ci ginnaaw mu mel ni sanru piscine yooyu moo waraloon bu tàkkusaan jotee taax mi day mel ni dañ fee dugalub kilim xam boo ñëwee da ngay gis féex mi ñëw rek nga xam ne doo xam fan lay jóge ci la ko tabaxal mu dellusiwaat fii ci Daaru Salaam xam ne moom daal ittey sëñ gaawaan rek a doonoon yitteem waaw loolu xam nañ ko si moom it. kàddu yi jëm waaw xanaa di doole sant taalibe yi di ci jiital suñ waajur yi fi toog nga xam ne ñoo suñ waajur a bokk di ci jiital rakk yi ndax ñoom ñëpp takku nañ ànd ak man xaaruñ ma ci dara. ak taalibe yi ku nekk da def nga ba def loo xam ne mënoo ko waaye man it jàpp ma ne man rekk maa dañoo xam ne bis bi lu ci waa jëf sëriñ Touba nga ko jëfal ndax sëriñ Touba liggéey loolu ñu leen di sant sant goo xam ne am na tàmbali waaye amul yemukaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah